bon woote bi li ko waraloon mooy euh, travaux bi ñuy wax euh, transport bus rapide dafa jaar fii ci sunu bunti place war a am benn impact boo xam ni danañu ko teg fii ñun ñu fi nekk ñëpp ay soutien de famille lañu ba pare dañu yor ay apprentis yor ay employés am lu ñu warloog ñoom yàlla dogal nag travaux yi malgré tàmbaleegul mais gis nañ ni conséquence yi commencé naa am ndax non seulement fi ne pour nga ñëw dugg si sa place rek da ngay def grande tour loolu nag moo taxoon ñuy jëkkat sunu kàddu ñun ñi nekk fii ñëpp di demander monsieur le président de la république di Macky Sall ki nga xam ni moo jaboote sénégalais yëpp nga xam ni ku bëtam xonq wala mu jaaxle ci moom la xelam di dem comme lii dafa ñëw dal ci sunu kaw te amuñu sañ-sañu yëngal wala ñuy def lenn loo xam ni dëppawut ak responsabilité ñu ne woon au moins nañ def benn point de presse pour mu dégguñu ndax fii fi la sunu kàddu mën a jaar egg ci moom ndax euh, mënuñu am audience di ko gis te mbir mi nekk na loo xamante ni fi mu nekk nii dafa ñor xom ndax tey bu travaux yi tàmbalee non seulement xaw waxuma dépense mais lu ñu fayee location bi sax dootuñu ko am parce que bu fekkente ni nii bu fekkente ni nii baare nañu route bi ñun devanture bi la ñu am fi la nit ñi daan jaar gis lu leen intéressé ñu jënd ko bu ñu baaree rue bi kenn dootu fi aw de ce fait que yow dangay ubbi sa magasin suba ba ngoon nga wàcc ñibbi ni nga xëy see woon noonu ngay ñibbeewaat te ku nekk xam na ni ku nekk xam na ni jamono ji fii nu toll nii képp ku sa activité taxaw sa àdduna yàqu na même ba ci pandémie bi ay impact la woon fi mu nekk nii ñun ñëpp ay victimes la ñu nar a doon bu travaux yi tàmbalee. te dama yaakaar ni nag sunu président bi nga xam ni moom la fi yàlla teg lii itteem ci réew mi mooy képp ku sa bët xonq mu def tout l'effort pour weexalal la ko kon nag ñoo ngi woo toutes les autorités yi nga xamante ni ñoom la ñu bokkal goxu Grand Yoff bi di tàmbalee woote bi ci monsieur le président de la république Macky sàll ak Marème fay sàll soxnaam buñ ñu mënee gestu jàppale nu ci lii ñu am ay ndàmpaay yoo xam ne dinañ ñu ci mën a dimbali benn moment bi nga xam ni travaux yi dina traversé ñu nar a yàq suñu liggéey ñu man cee am lu nu ñuy suturloo di ci jox xale yi di ci mën a fay location yi ba keroog liggéey bi di yegg mardi daal lañ ñu dégg amuñu ci confirmation bu leer mais rumeur yi ñu dégg mardi lañ ñu wax mu ngoog kon loolu leer na mardi la wax on est à vendredi samedi dimanche lundi mardi moo fi des te ñii nga xam ni ñi ngi nekkoon fii ci rue bi ñi fi yor ay taabal sax doon jaay gerte caaf wala banaana kenn ku ci nekk am na lu ñu la jox ba nga quitté ñun ñi nga xam ne nag ñun ñooy responsable yu mag yi yore magasin yi di fay location di fay ay euh, patant ndax ak chaque année dañuy fay benn patente annuelle dañuy fay dañ doon fay devanture yi maire yi xëy na temps yi sax arrêté na ndax travaux yi ñu entamé mais dañ ko daan fay régulièrement mensuellement di fay patente annuellement loolu lépp nag dafay daal di nekk ay gàllankoor ci sunu kaw yoo xam ne daal bu nu sañoon autorités yi danañ ñu ci dimbali jàppale ñu ci forcé nguñu eh, waxuñu wax ju ñagas waxuñu lenn dañuy laaj sunuy àq ndax ci réew mi la ñu bokk ay citoyen la ñu te kon lépp loo xam ne dal na ci sunu kaw war na noo yëkkati sunu kaddu ba autorités yi dégg ko sànq wax nañ ci ak euh, monsieur le euh, préfet wax ci ak le commissaire de Grand Yoff Parcelles Euh, xamal nañ ñu ni ñoom it fépp seen kàddu war a egg danañ ko fa yeggale waaye dañoo gëm ni média mooy première voie bi nga xamante ni ku ci jaarale say mbir mën naa egg fa nga bëgg mu yegg fa te ki nu bëgg ñu dégg ko actuellement seen notre président de la République monsieur Macky Sall ndax moom mooy le père de la nation. bon ndàmpaay yi waxuñu ni buñ ñu ko joxul dañu fas yenee def dara dañuy demander jusqu'à nouvel ordre ba nga xamante ni nii ñi ko war a dégg dégg nañ ko bu ñu ko déggee te xëy na lii nu bëgg nii defaluñ ñu ko su boobaa xëy na ci la ñuy seet beneen forme de lutte parce que forme de lutte la waa d'accord mardi ñëw na ba pare waaye kilifa kilifa la li des ci ngoon gi rek su neexoon mag Sall situation bi réglé wu fii ak 18 bu neexoon président de la République situation bi réglé dara paasewul ci état lii nag mooy suñu devoir ñun yëkkati suñu kàddu ba ki ko war a dégg dégg ko ndax nit da ngay yëglu buñ la saafaraalul nga soog a xalaat beneen forme de lutte booy def ah non fii ñun jóge fi fi la ñu nekk magasin yi dañ ñu ko loué magasin yi nag bokkul sax ci li ñuy toj mais ñun li ñuy demandé mooy encombrement bi nga xam ne travaux yi dina ko am durant année yi nga xam ne ci la liggéey bi di jàll parce que dafa départ nii déjà encombrement bi dafa tàmbali ak empêchement bi te travaux yi tàmbaleegul à 100 pour cent ci loolu la ñuy wax parce que dama defe ku dem bay indemniser ku teg table ci mbedd ki yor magasin di fay location du mat wax waaw ci cadre boobu la ñuy waxee mais ñun kenn yëkkatiwuñu ñu ngi suñu biiri place mais dañuy demander soutien ak ed sur notre suñuy suñuy euh, camarade de réew ak suñuy njiitu réew ñoom ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñu njaboote pour que ñu man ñoo dimbali. ci lii nga xam ne mi ngi waaj a dal ci sunu kaw loolu moo waral point de presse bi waaw loolu moo waral point de presse bi <coughs> mu defal ñu ay subvention yoo xamante ni su ñëwee ñun ñi nekk fii mu ngoog dañu impacté parce que travaux yi daf ñu laal mooy li ma la wax ay commerçant lañu te bu ñu fi jaaree ñi la doon gis di jënd ci yow dootuñu fi aw dañuy jaar ci beneen mbedd en même temps yow doo am sax accès sa sa place da ngay gaare ca àll ba jéem a dox ak tànk ñëw dara dootu fi aw durant ces travaux là waaw bon am na ñu fi def vingt ans am na ñu fi def vingt cinq ans am na ñu fi def vingt deux ans donc durée bi gën a daal ñi fi gën a yàgg def nañ fi vingt cinq ans mais man moom def naa fi vingt ans waaw parce que depuis maa ngi fii jusqu'à deux